loolu la loolu boo ko waxee rek caaw gis naa leen ñu ànd gis naa leen ñu dugg ci néeg loolu gis naa leen ñu toog na loolu doy maa leen gis ñu summee ñu ne après loolu kese loolu doyul leeralal nga ne gis naa leen ñu tëdd ne loolu doyul nga sharia te ñeent ñi ngay indi bu ñu bokk fu ñu jóge de bu ñu bokk fu ñu jóge bu ñu yëgante danga naan maa gis awratu góor gi dugg ci awratu jigéen bi loolu foo koy jël ñeenti nit ñi loolu foo koy jël ñeenti ñooñu nga yëg arbaa shuhada la yàlla wax loolu pour lan yàlla daf ñu bëgg a sécuriser pour kenn génn rek yàq dara soo indiwul ñeenti yooyu ñu ne bismillah liggéey leen ci moom ñu jàpp la caw la juróom-ñett weer boo liggéey doo ko wax soo indee seede yi muy dëgg. bu fekkente ne bu góor gi dafa sangewu dañ koy rey bu fekkee ne amul jabar ñu caw leen ku nekk téeméeri <coughs>